bi may jeexalee beneen bi nag mooy tariqa bi moom laa ubbee woon balaa ñuy julli tibis gis nga ana Oustaz Sidi Ahmed Mbaye balaa ma koy wax mu ñëw waaw waaw waxuma dënkaane janax de dënk la fi ah, kañ bu ma ko paree rek nga dem gis nga am na loo xam ni kum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llah bi ci des fi may jeexale jox aliya mooy tarixa bi damay ñaan encore une fois li may wax nag neexul dikk tarixa bi ku ko jàpp jarul ngi ittewoo benn turi yàlla bu la ci nit laaye biir dencal boo ci xam dencal bu la ci jox dencal kilifa gi nga xam ne nag mooy sa kilifa jox la tariqa bu ko laaj turu yàlla waaye su la woowee jox la turu yàlla jëlal sa cheikhul murabbi yaa ko jox sa bopp ne ko yéeg sama tarbiyaa ngi ci seen loxo bu la nee defal lii defal loolu sa cheikhu tarqiya yaa ko tànn pour mu yóbbu la ci yàlla bu la nee defal lii defal loolu bu la nee bàyyi lii bàyyi loolu waaye su dul loolu yii taalibe yi di joxante mosal lii wax naa ko fi ba tey ku yàgg di def loo gis mos ko wala luñ la ne mos ko nga mos ko sa biir dana daw sa biir dana daw bànd waaw kañ sekk bu maam borom bànd seen bu maam borom Touba waaw kañ tafsir gaye ma boole woon ak moom ca Ndar tabarkàlla ci suñuy spécial korité bi ak Chérif Mamine Aïdara tabaarakallaahu kon wax ci moom nag lu rafet kon su ko defee ñoom jibi siis yàlla def na ci mbaaxam ku jàpp tarixa bi mënatoo am lu ëpp tarixa bi waaye waay waaye waay man li may wax fomante ko dama am ñewenti yi nit ñi rek nit ñi na koo koy wax du ko gëm nañ yem ci salaatul faatixe gisuma lu nit mën na liggéey ci kaw suuf tey lu ëpp doole julli ci yonant bi mboolem xeetu lu ñuy jullee ci yonant bi nag salaatul faatiha ci féetee kaw loolu la yàlla dogal ku ko gëm am na ku ko gëmut am na mboolem lu nit di defal yàlla tey julli ci yonant bee ci gën ak démb nag waaye mboolem xeetu julli win ci yonant yépp muy salaatu ala bi salaatul faatixe nekk ca kaw mooy chapeau bi ku ko gëm loolu la yàlla dogal ku ko gëmut loolu la yàlla dogal te mën nañ koo lay waaye duñ fi nekk di ko layal ndax suñuy sëriñ lay nañ ko bu yàgg Cheikhuna yi wax na ci bétaay ah Seydou Seydou El Hadj Malick wax na ci bétaay ñeneen wax nañ ci Cheikh al Islam El Hadj Ibrahim Niass Baye wax na ci bétaay maam Ablaye Niass wax na ci Thierno Mat Saïdou wax na ci maam Amady Ndak sekk wax na ci ñëpp wax nañ ci terewu tekkiwul ne yeneen salaatu yi baax na. man salla alayya marra waxida salla alayhi laahu ashra marra wa man salla alayya ashra marra salla alayhi laahu mia marra wa man salla alayya mia marra salla alayhi laahu alfa marra wa man salla alayya alfa marratin kataba allaahu lahu baraatun min annaari man waxuma ko yonent bee ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku julli ci man fukki yoon yàlla julli ci yow téeméeri yoon nee na ko julli ci man téeméeri yoon yàlla junni julli ci yow junni yoon mu ne ko julli ci man junni yoon yàlla effacé sa tur ca jahannama bind sa tur ca ajjan ilaa yawmil xiyaamati loolu salaatu ala nabi rek ko salaatu ala nabi rek julli ci yonent bi rek moo am garanti soo yoree njàpp wax ko ñu nangu ko soo amul njàpp wax ko ñu nangu ko soo setee wax ñu nangu ko soo tilimee nukk wax ñu nangu ko soo yeewoo say xaamit wër la ngay yuut wax ko ñu nangu ko nga yeewu ju fekk yaa ngi jaxasoog sa soxna wax ko ñu nangu ko nga génn ci toilette bi wax ko ñu nangu ko xanaa lii caabi passe partout la foo ko roof mu ubbi ko alfaatixi li ma uxliqa mboolem lu tëju woon moo ko ubbi moom sallallahu alayhi wa wal xaatimi li ma sabaqa noo koy firi wal xaatimi li ma sabaqa noo koy firi alfaatixi li ma uxliqa moo ubbi lépp lu tëju woon wal xaatimi li ma sabaqa moo tëj bépp garaat bu féete woon kaw ba la neexee waaye du boobu wal xaatimu moo ndar képp li ma sabaxa bépp salaatu bu dut moom <laughs> ah dañuy moom mi Gabon la ne. Mhm. keroog bi ma indee. Mhm. ak indi nañ ma ci juróom-ñaari fan. Mhm. keroog bi ma indee ci procureur. daf ne la yow yaay Babacar Boye. ne ko waaw mu ne ma danaa la tëj ñaari at avant ma leen refoulé Sénégal. bi ma ñëwee sa suñu daay la. ci li imaam joxe dog salaatu Fatiha. biñ ko defee. ma tëdd guddi. gént. mel na ku jëm ci benn kàmb. Mhm. bi ma ñëwee ba léegi kàmb bi. Mhm. ma gis benn policier taxale bu taxaw. Mhm. mu ne ma ana sa laissez-passer ma benn dañ ma jox benn carte carte kii carte de visite. mu daal di koy xool daal di ma Cheikh Ahmed Tidiane Kër yi. ma béy ko waaw.

mu ni ma dinaa la defal liberté am provisoire. Hmm. police bi ne ko ah moo ku nekk la kii dafa liberté ak ni mu gaañe xale bi. Hmm. mu ne ko teg sa sa ci sa yoon. te hmm. wàllu procureur la ko wax. waaw. daal di génnee benn carnet. daal di bind signé ci carte bi. police bi ne ko bon defal ma euh, décharge mu defal ko décharge bi.

Ah. waaw woo waaw salaatul fa ma ci laa jëm ngeen baal ma wal xaatimi li ma sabaqa moo ndar képp bépp salaatu bu dut moom ba jiitu woon ak bi mujj nim leen ndar keppee la ubbee nag alfaatixi li ma uxliqa bépp bunt bu naroon a tëju ak bu tëju woon moo tax su la ko yàlla xasale defal nag naasiril xaq bil xaq ñaari loxo ngay tibbe waaw ah, loolay naasiril xaq bil xaq ñaare ngay tibbee soo tibbee ñaari loxo ba noppi nag wal haadi ila siratika al ku ànd teg yow jub xaqiqat ak sharia mooy ñaari loxo yi ngay tibbee da ngay tibbee xaqiqa di tibbee sharia xaqiqa ak sharia ta taqali ko ñoom ñaar ñaari loxo yooyu ngay tibbee mooy tax ku àndateeg yoog nag wal haadi ila siratika moo tax wa ala alihi ak njaboot ga ak ña ngay àndal ñépp xaqa qadrihi dëgg-dëggi topp wa miqdaarihi al-azim kon salaatul faatihi lu ko lu ko ëpp amu fi lii Babacar booy nettali ma joxe ci ñaar du ma tudd turam ndax léegi koy tudd xëy na njobootam am na ca ñu mën a comprendre am na ci ñu mënta comprendre moo tax du may faral di tudd tur lu dul ku ma wóor ne wóolu naa ko ndax nit ñi buñ la bëggee jaar fu ne dañuy jël sa wax transformé ko noo ko waxewu wu loon moo boo tuddee turit mën na njaboot gi xëy na am ci ku la jubluwut ñëpp ñu la bàkk jublu ku la jubluwut dem wax yu kenn xamut kii imam Moussa Gueye xam na ko ku weddi boo demee ba ci imam Moussa Gueye man duma la wax tur bi waaye moom dina la wax tur bi prisonniers yi ñu doon jàpp ci 39 guerru 39 45 ci la bokkoon ñu jàpp leen ba war leen a exécuter rey mu ne boobu ndeke moo ko nettali imam Moussa gi imam Moussa moo ma ko nettali ndekete boobu góor góor gi mu ngeeg photo sëñ kër si ci kalpem def nañ leen ci cellules yi ñu leen war a reyee bët bu set ñu yóbbu ñaar rey wala ñett ba ba yegsi ci cellule xam nga bu ñu la waree rey dañ lay wax ne suba lañ lay rey dernier mot yóbbu boo amee ko war a tàggu ñu yóbbu la nga tàggu leen tàggu sa njaboot wala looy dënkaane ñu jox la nga dënkaane jox la cahier de décharge nga bind li nga bëgg a bind pour ñu door laa rey góor gi ne na ñu ñëw ne ko yow ci ñi ñi rey suba nga bokk sa dernier mot mu wax li muy wax ba pare ñu jox ko cahier de décharge mu déchargé déglu li may wax de nga ne boobu mu ngeeg photo Serigne Babacar si ci kalpeem nee na mu génnee kalpe bi gannaaw bi garde yi deme moom rekk ci cellule bi nee na mu génnee photo Serigne Babacar si bi di ko xool di ko xool di ko xool ba mu yàgg ne ko cey si weddiwuma saalituma ndax jullit laa taalibe la dee moom ya ma koy def yàgg-yàgg waaye su ma sañoon deewee ji ci sama njaboot ñu gis ma yow nag yaa waxoon ne boo rusutoon Seydi Hadji Malick ku la woo ci photo nga wuyu xam naa ne am na si maa ngi lay ñaan ëllëg nag lañuy may jaarale fi ñu jaarale woon sama morom yépp maa ngi lay ñaan suñ suñ ma defee noonu yal naa dajeek yow dal di jël photo bi fóon ko dugal ci kalpeem nee na ci gu ci diir boobu rek mu gënt nde nelaw fëkk ko mu gënt gis kuy wàccee ay Euh, kàggu maanaam ay classeur nee na di wàccee classeur yi ba gis ci bu poussière poussière nee na mu wàccee ko fëgg ko fëgg fëgg fëgg ubbi ubbi ubbi xool xool jël crayon di effacer di effacer mu gis ko mu ne mu ngi koy gis ci effacer rek mu tëjaat ajaat yépp ci kaw nee na mu ne xefeet yeewu nee na heure bi ñu ko waroon a jëlisee mu dégg ñuy ubbi selil yi karaj karaj mu ne waaw kañ sama heure jot na tey lañ may rey nee na mu ne karaj karaj ba yegg ci moom ne ko ana diw mu ne ko maa mu ne ko ne nañ sa dossier dafa am lu ci des nañ la yóbbu ci beneen cellule duñ la rey tey sa dossier dafa am lu ci des dañ koy xool nee na ñetti fan lañ ci teg ñu xool dossier am ne ko erreur la woon ndekete yow bokkoo ci ñu ñu waroon a rey danañ la embarqué suba nga ñibbi senegal 39 hmm? 45 sëñ Babacar si kañ la génn àddina 57. Imam Moussa pour nit ñi xam ne li may wax moo tax ma di leen jox dat yi Imam Moussa Guèye ne yóbbu ko ci kaw Imam Moussa Guèye ne jaral na la jaral na la Imam Moussa Guèye góor gi wàcc rek jubali Tiwaawan dafa génn wàcc ci bato bi rek. jubale Tiwaawan jaarul këram waa këram bi ko xaar mu jubale Tiwaawan nee na rang ba yegg si ba jub sëñ Babacar si mu xool ko nee na sëñ Babacar fixé ko ne ko nañ bokk sant yàlla rek waaye man fu sama njaboot nekk maa ngi koy gis nee na ba tey waxut jaw mhm. boo ko nettalee noonu danga naan sëñ Babacar si kon daf doon fat sàcc yi mosul faj sàcc am na ci ñaar bii Baye Diaw nettali dëgg la du ma tudd turam waa ji daf doon garde ay barili diwlin bi mu koy garde kan waaw mu xaar bañ yeggal na xaar bañ yeggal yàlla def incha allah yàlla def moom dafa détourné woon bi mu détourné ñu def ko audit gis ne dafa détourné lu takku mu daw dem ci sëñ Babacar si wax ko sëñ Babacar ne ko yow la mu ne waaw mu ne ko dinaa la ñaanal kenn du la tëj waaye da koy fa di nga ko fay mu ne ko man gañ si bu ma ci génneeg jàmm dinaa ko fay mu ne ko baax na tàllalal ñaanam gu gaaw googu comme Thierno Bachir rek bilaay da ngay foog ne jàngut dara Thierno Bachir ku muy ñaanal. boo gëmut yàlla piir danga naan kii dara la ma defaloo moom danga naan sax jàngoot moom fi muy tàllale benn la ci am na nit yàlla yoo xam ne sax duñ jàng seen xel rek lañuy ndax ñoom buñ lay ñaanal liñ lay ñaanal ñu ngi ko tiim mooy am am ci ñoo xam ne par araf lañ leen di jox du njàng faatiya sax dañ naan laam laam boobu ci la leen yàlla defal lépp bu ko defee nga ne ñaanalu ma sëñ Babacar si nag moom bu la nee insha allah yowmal xiyaam sax du tax mu deñ waa ji ñëw ñemewul dem biroom ndax boobu audité nañ ko te buy ñëw ñu mënate ko yóbbu nee na mu ñëw rek sëñ Babacar ne ko jubal nga dem liggéey nee na ma ñëw toog ci bureau bi mu ne téléphone bi sonné na ñetti yoon ñemewuma ko jël nee na mu jigi ma ne naa wàkkirlu nag ku ñaanlu ci sa kilifa it sañ ngaa wàkkirlu nee na mu ne kar rek ma jël mu ne muy guwet tubaab bi aloo diw mu ne ko waaw yow la mu ne ko waaw man la mu ne ko du xam nga li nga def mu ne ko waaw mu ne ko xam nga li waroon ci yow mu ne ko waaw mu ne ko duñ la tëj waaye dinañ la affecté Matam ba pare dinañ ko dagg ci sa salaire bi ba muy jeex li nga jën mu ne ko waaw mu ne ko kon jeex na prépare dañ lay avecté mu ne ma delluwaat ci waaw ne ko si am naa affectation waaye ndokk comme am naa ci loolu waaye daf ko fay ci saleeram lañ ko dagg ba mu jeex kii muy wax ñaari barigo la ràndal ci lim doon garde barigo diwlin yi mu doon garde barigo ya bari mu jël ci ñaar am ku ko boole chauffeur bi yëg ko daaw dem ci sëñ Babacar si wax ko ko mu ne ko yaa ko jël mu ne waaw mu ne ko boo noppee li ma lay wax dinga ko delloo mu ne ko waaw dinaa ko delloo mu ne ko suñ ñëwee di seet sa kër di vérifier barigo yi buñ ko gisee buñ la nee yaa ko moom neel waaw buñ la leen lu ci ne neel ndox te déwli na ci ne tubaab bi ànd ak ñiy visité ñëw ba ci kër gi di visité barigo yi fekk boole biñ ko boole tubaab bi dem na ba xool ne ñaari baril moo ci man gi mu ñëw kër waa ji fekk fa ñaari baril yu niroog yosam xam nga ko dëgg am na mu ne ko yow sa baril yi foo ko jëlee ku ko moom mu ne ko maa ko moom mu ne ko lu ci ne mu ne ko ndox mu ne ko ah, yaa yàlla yii samay baril mooy sama baril diwlin yi ndox a ci ne ko ndox a ci ñu ubbi bi ñu ubbee juutal ndox tuuru mu ne ko wax nga dëgg ndox mii loo koy doyee mu ne ko damay tabax sama kër moo tax may ut ay ndox di denc mu ne ko waa baax na dinañ xool dal di tëj bi mu tëjee dëdd waa ji sotti muy dëwlin ci guddi gi mu roñ ñaar yëpp delloo ji ko bon looloo gën a tuuti ci lu lu wali yu man waxuma laa xutbul fardul jaame ko toll ni Sëriñ Babacar Si loolu nag moo tax beneen bi pour dimbalee ko góor gi booy xam ngeen maam alfa maam déedéet maam alfa wele moo maam alfa ma yoro wele maam alfa wele bi juru maam fa bi nijaayu seydul xaaji te jox ko tarixa bi lii may wax moom la dal abdu booli faal xam ngeen ko lu mbokk ak seydi xaaji benn ndey Abdou Booli Fall daf daan jaay ay jaam boobu jaay jaam dagan na ñu décrété ci Nations Unies ne kenn sañatu la jaay ay jaam bu kenn jaayati jaam ku jaay jaam daañ la jàpp te buñ la jàppee danañ la tëj ci kaso bi moo am ba léegi loolu Nations Unies ñoo ko décrété ñu boole ko ay jaam yum jaayoon ñu boole ko gouverneur convoqué ko balaa muy dem mu ñëw ci Euh, euh, euh, Abdou Boli Fall kon la Abdou Boli Fall di jaay jaam ñu jàpp ko convoqué ko balaa ñu koy convoqué mu dem ci maam alfa ne ko ah wele kon tubaab bi convoqué na ma de ndax jaay jaam yi ma doon jaay jaam mu ne ko alfa bàyyi ko mu ne ko Abdou Boli bàyyi ko ndax dañ koo tere mu ne ko si wele dinaa ko ba mu ne ko ñetti salaatul faatihi laa lay jàngal ñeenti salaatul fatiha astaghfirullah laa lay jàngal su la tubaab bi xàmmee ak jaam yi nga jaay ma delloo sama kurus Cheikh Omar te xam ne salaatul faati du dëgg ne ko tàllal la mu tàll mu jàngal ko ñeenti salaatul fatiha mu jóg dem premier séance bi tribunal tribunal ñépp toog ñu ne Abdou Boli Fall mu jóg taxaw président ñu ne jaam ñi kii mooy Abdou Boli Fall moo leen jaay ñu ne ko déedéet du kii ñu ne yéen yéen xamu leen ki leen jaay kii du Abdou booli Fall mu ne man la Abdou Boli Fall jaam yi ne ko procureur du kii ñu renvoyé séance deuxième fois bi mu ñëwaat wax ko maam ma maam Alpha ne ko la ma la waxoon laa lay wax ñeenti salaatul faatiha tàllal benn mooy xibla benn sow benn ndeyjoor benn càmmoñ bu ñu la xàmmee ak jaam yi nga jaay ma delloo sama kuru Cheikh Oumar te xam ne salaatul faatiha du dëgg jàngal ko mu dem. mu ne mu ñëwaat Abdou Boli Fall mu ne président kaay taxaw ci baar bi mu taxaw yéen njaam yi kii mooy Abdou Boli Fall ñu ne déedéet du kii monsieur le procureur du kii procureur moo jóg taxaw ne leen eh génn leen ci biti comme xamu leen ki leen jaay ba ngeen xam ki leen jaay ngeen ñëw ñu àtte leen fa la yem fa la yem xam nga noo koy dégg bu may daaneel aaye boobu rek jógal dem waaye na ñëpp toog déglu aliya kii nag bëgg naa ñëpp déglu ko ñu door a julli xam nga foo koy déggee inna alladina amanu wa amilu saalihaati kaanat lahum jannatul firdawsi nuzula xaalidiina fiiha laa yabguuna anha xiwalan qul law kaana albahru turi yàlla yëpp midaadan li kalimaati rabbi la nafida al bahru qabla an tanfada kalimaatu rabbi ba mu des salaatul faatih walaw ji'naa bi mislihi madada qul innama ana basharun mislukum yuuxaa ilayya annama ilaahukum ilaahun waaxid faman kaana yarju liqaa rabbi falyacmal camalan saalixan wala yushrik yow taalibe bi tiijaan bi wala yushrik bihi bi rabbihi bi wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada salaatul faatihi bu ko booleeg dara moo tax amalu saalix mooy secret bokk na ci secret tariqa bi amalu saalix mooy 500 moo tax Cheikh Sidi Ahmad Tijaani daan joxe 500 salaatul faatihi wala 1000 500 mooy amalu saalix mooy sirru waaye sirru moom isa isa fasada charru isa dahara wala isa charru eh, sirru isa dahara sarru sirru kañ bu bu bu tasee nekkatu sirru charrun waaye amalu saalix nag moo lay won ne mooy 500 pire te amalu saalix boobu mooy secret laaye ji inna alladina amanu gaa ñi nga xam ne ñoo gëm wa amilu saalihaat yemuñu ca ñuy jëf naa fi naafila yi luñ baax lu dégg luñ dégg sóob ca seen loxo kaanat nekk na di leen ñeel jannaatul firdawsi ajjana bu ñuy wax firdawsi nuzulan fa lañ leen di ganalee ëllëg nuzul mooy ganale lu wàcc waay de nuzul mooy ganale fa lañ leen di ganalee ëllëg ikraamu day fi salaasa ci nga koy déggee li yonent bi wax mu ne buñ duggee àjjana ñetti fan la ñu yàlla di gànnale door ñoo bàyyee moo tax fii aqu diyaafa salaasa salaasata ayaamin lañ ci jublu moo tax yowmal qiyaam ñetti fan lañu ñu yàlla di gànnale fan bu njëkk bi yonent yàlla Muhammad yonent yàlla daawuda mooy jàng soratu soratu ah soratu bayaan lañ wax am na ñu ne rahmaan am na ñu ne rahmaan su paree ñaareeli fan bi yonent bi salaa jàng suratu yaasin ñetteelu fan bi suñ borom mi bindal quran nag mooy jàng suratul ixlaas te yonent bi la ko saydatuna Fatima moo ko waxoon saydatuna Fatima ba saydatuna Fatima dëbbee ba loxo yi wow mu ñëw ne yonent bi bàyyam xoolal ni sama loxo yi mel këlaar yu neexut dëbb naa ba sama loxo yi dër yonent bi làmb loxo yi mu woo koŋ mu ne ko ndax duma la bëggalee Fatima sangu àddina ak àllaaxira yaa leen di jur muy Seydina Xasan ak Seydina Xuseyn ñooy sangu àddina ak àllaaxira mu ne ko te ñooy sangu àjjana ëllëg loolu doy la mu ne ko ankañ mu ne ko waa Fatima bu ñu duggee àjjana loo bëggoon yàlla ganalee ñu ko ñetti fan yu njëkk yi lii Fatima ko décrété yàlla signé xel daawuda ku neexoon baat la dama bëgg bu ñu duggee àjjana ñetti fan yu njëkk yi mu jàng lëf ci alxuraan ma dégg yonent bi mu ne ko ndax yow laa dégg nga daan wax ne su daan jàng zabuur picc yi dañuy ñëw di tag ci kaw boppam di déglu ndax neex ba yonent bi moo ne sawtu daawuda mizmaarun min mazamiril janna piano la ca piano àjjana yi yonent bi nee na baatu yonent yàlla daawuda piano la ca piano àjjana yi xam nga ne kon piano àjjana neex na mu ne ko kon dama bëgg say euh, euh, yonent yàlla daawuda jàng as lëf ci alquran ma dégg yonent bi ne ko man mii sa baay yàlla nee na ma daawuda dana jàng suratu rahman mu ne ko bu noppee nag ku neex baat bàyyi ci àddina ci sa baat bii la jóge yaa dàq ñépp baat ma bëgg yow bu boobaa nga jóg jàng as lëf ci alquran mu ne ko yàlla nangu na ko nee na man mii sa baay may jàng suratu yaasin mu ne ko bàyyi dama lay ñaan comme yàlla nee na wala day naa masjid lum ñuy dolli mu ne ko sa borom nee na moom mi bind alxuraan nag bind ñépp dàq ñépp bind ñépp mooy jàng suratul ixlaas ñépp dégg yonent bi nee na su daawuda jàngee suratu rahmaan mu ne dangay gis nit ñi di jaay ndax neex mu ne moom bu jógee ba jàng suratu yaasin nga gis nit ñi di ney ñii di ñii di daanu ñii di fëlañu mu ne bu suñ borom jàngee suratul ixlaas nag ñépp seey malaakal yi dabaatal la ah yàlla mi bind neex bu taxawee di jàng suratul ixlaas yàlla mi bind neex laa wax de xam nga na yàlla dàq neex walla déet bay di yàlla mi bind neex ba lu nit tàqamti ko ne neex na lu nit dégg ne neex na yàlla mi bind neex taxaw wax neex dana neex ba neexaaral kay kon yal nañu yàlla may sutura rek waaw yal nañu yàlla defal sutura waaw kay yal nañu yàlla defal sutura waaye la tabarkalla tabarkalla nañ bàyyi xel rek inna dina amanu naka ñi gëm yàlla wa amilu tey jëfe saalihaati farata yeeg naafila yi kaanat nekk na di leen ñeel jannaatul firdawsi àjjana ju ñuy wax firdawsi nuzulan mooy seen nganale ko kaay xam nga lu tax dañ wax ne firdawsi moo gën a kawe ci àjjana yi dëgg la am na ñu ne maawa am na ñu ne naim déedéet naim maawa firdaws naim mawa firdaws jannatul firdaws mu ngi ci biir jannatul e, illiyin am na ñu ne illiyin moo gën a moo féetee kaw waaye lu tax tudduñu illiyin ñu tudd firdaws bàlli bàyyi illiyin eliyin eh, mu ngi ci biir firdawsi xam nga noo koy déggee kër gi kaas ba ca kaw mooy fi illiyin kër gi mooy firdawsi kaas bi mooy illiyin illiyin ñi yàlla tànn ñoo fay ne kaas bi xam nga koo fonk ca kaw nga ko waaye mu ci biir illiyin waaw illiyin mu ngi ci firdawsi loolu la ñu bari wax ci borom xam-xam yi waaye lu ca mënti am rek neex na jannaatul firdawsi àjjanay firdawsi kaanat lahum jannatul firdawsi nuzulan mooy seen nganale kukaay xaalidiina way sax dàkk lañ fiiha ca ajjana ja yanu ci yàlla boole laa yabxuuna du ñu dikk fiiha anha laa yabxuuna anha du leen fa jot anha ca ajjana waxul fi am na fu mu ne fiiha fii mu ne anha anha ca ajjana xiwalan coono benn coono duñ ko fa am xiwalan mooy coono duñ fa yàlla ne na àjjana duñ fa am benn coono sonn naa amut àjjana laa yabxuuna anha xiwalan mu ne xul waxal gaa ñi ne leen law kaana dafa nekk law kaana donte nekkoon na albaxru géej yépp midaadan di encre li kalimaati rabbi ngir ngeen ci sàbbal seen borom di tudd ak di bind la nafida dana ngacc albaxru géej yi mu dem ca beneen laaya walaw ma fi ardi min shajaratin aqlaamun walbahru yamudduhu fi sabatu abhurin ma nafidat kalimatullah foofa la ko foofa la gën a leere fii danaa la indil ñaar yépp fii dafa ne bu géej yëpp nekkoon encre ngeen di sàbbal di bind géej yi dana jeex xalimba yi jeex te sama turi yi du jeex man yàlla fële mu ne walaw maa fil ardi doonte li ci kaw suuf yépp min shajaratin ci ay garab aqlaamun dama leen ko lesal muy ay plume maa fil ardi min shajaratin aqlaam ngeen def ko ay plume ma dolli leen ci géej yi sabaatu abxarin juróom-ñaari géej dolli leen ko ci géej yi fi nekk te xamu leen woon juróom-ñaari géej yooyu mu ne ngeen di sëpp di bind encre yi dina jeex xalimba yi jeex maa dafit maa nafidat kalimatu la kalimatullah te sa turu borom du jeex fii mu ne law kaana al di encre li kalimaati rabbi ngir nga bind sa turu borom yi ak sa baatu borom yi ak turam yi la nafida dana jeex albaxru géej yépp qabla lu jiitu an tanfad ba muy jeex kalimaatu bi sa turu borom yi walaw donte ji naa dama leen indilaat bi misli yi kem géej yi madadan ci renforce walaw jaj naa bi bi bi mislihi madada mu ne kon bu leen sonn yonent bi ne leen xul wax leen ni inna mooy secret ba xul ne leen innama ana basharun yem leen ci man mooy secret ba bàyyi leen tur yi te yem ci man xul ne leen buñ sonn ci yooyu innama ana basharun maay waa ah, nit laa nag waaye mislukum comme yéen waaye sama différence yi yuuxa ilayya kiy wax ak man du wax ak yéen Hmm? yuuxaa ilayya kii wax ak man du wax ak yéen innama ana basharun mislukum waaye yuuxaa ilayya maa ngi leen di wax ne annama liy dëgg tey dëgg liy mbir tey mbir li wér te wóor mooy ilaahukumu seen borom ilaahun yàlla la jenn waaxidun képp du ñaar du ñett annama ilaahukumu ilaahun waaxid mu ne fa man kenn ku nekk ci yéen yarju yaakaar liqaa dajeeg rabbihi boromam ëllëg fa ca saasa fa mu ko yaakaar te xam ne dana am yaamal nay jëfee amalan jëf saalihan ju yiw wala yushrik bu mu bokkaale bihi ci salaatu ala nabi bu la neexee ahadan ak beneen salaatu sëñ Tuubaa ko may firamu tamari wa ali wa salimi mhm.

شفيه شيخ الإله وآله وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى على حسب الإله سيدنا توبا كو mag ñëpp yonent bi rek siraati udam ila wa sahbi wa sallim salli ala sayyidina waliyina qudwatina habibina shafi'ina wa alihi wa sallim salli ala al-mu'addabi bi hurmati al-mu'addibi khayri mm-hmm. rasuli wa nabiyyi wa sahbihi wa sallim salli ala babi an-na'im zaka as-sirati al-mustaqim muhammad ya khayri al-anbiya wa alihi wa sallim salli ala izz al-'alam wa zaka kashif al-kurab wa zaka rafi al-rutab wa sahbihi wa sallim صل على ماحي الوكيل والمتوكل الكفيل خائننا إلى سبيل بالي وسلمي صل على البحر البحور ليس عند شاف الصدور نافي سحابة البدور وسامي وسلمي بارك الله بنا jërëjëf sëñ Banda waaw fii sa maqaam la sa barab la yaa ko moom waaw ndax fii yonent bee ko moom waaw yonent bi ñépp a ci bokk gis nga sëñ Touba li mu wax ci yonent bi ñoom ñëpp julli ci yonant bi moo leen may li ñu am gis nga turi yàlla yi ñoroon ñoom dañ ci doon barkeelu waaye yonant bi mooy locomotive bi leen yóbbu ci yàlla ma waxati amul benn turu yàlla bu la mën a yeggale ci yàlla fekk jaaroo ci yonent bi amul amul benn turi yàlla bu la yàlla moo ñag boppam ba yegguñu fa ana minallaahi wal muminuuna jeexal na yonent bi nee na ana man yonent bi minallaahi man kott maa jógee ci yàlla wal muminuuna yéen ñi gëm yàlla min nii ci man ngeen jóge jeex na benn boobu yonent bee ko wax yàlla fell ko walaw annahum id zalamu anfusahum jaauka fastaxfarullah wa astaxfara lahum rasul la wajadullaha tawaaban rahiman ñaar hmm? ku fi teg yónnent bi doo am tus ku yónnent bi il incontournable pour dem ci yàlla il est incontournable wiiri wiiri jaari ndaari mooy ndaari moom sallallahu alayhi kenn mënut jaar fenn te jaaroo ci yónnent bi mënoo am yàlla te jaaroo ci yonent bi mënoo dem ci yàlla te jaaroo ci yonent bi moo tax mag ñépp jël seen lëpp jox yonent bi nekk bàyyi faalam ba yonent bi jël li mam jox le muy sëñ Touba muy Seydi Hadji Malick muy Cheikh Seydi Ahmed Tidiane kon fa man képp koo xam ne yarju yaakaar na liqaa a daje rabbihi ak boromam fa ca saasa fa mu ko ya amal na jëfe amalan jëf joo xam ne saalihan ju yiw la wala yushrik bu mu bokkaale bihi ci jaamu googu muy jaam bi ibadati rabbi jaamu gi muy jaamu boromam ahadan ak dara moo tax ma firil la ko ne yow taalibe tiijan bi salaatul faati bu ko booleeg dara ndax moom rek moo amul shirk tur yàlla weneen mën nga ci dugal shirk ba mu des salaatu ala nabi xamoo loolooy sew sew bi te moo tax mu nekk passe partout mën nga ne yaa fattaaxu yaa fattaaxu bëgg a ubbeeku fekk yow ku néew nga tëjal ko sa bunt kon contradiction am na yaa ngi si kër yaa fa taaw te yow ñëpp nga tëjal sa kanam gi fu la yàlla di ubbile yaa raxmaanu yaa raxmaanu yaa raxmaanu te yërëmoo kenn fu la yàlla di yërëme yaa raxiimu yaa raxiimu yaa raxiimu te amoo ci kenn yërmande kenn amul ci yow yërmande fooy fay demee yaa xafaaru yaa xafaaru yaa xafaaru yaa xafaaru ca yow doo jéggale astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah te ku la tooñ doo ko baal te yàlla wax na ko ci alquran hmm? yàlla wax na ko ci alquran ndongo dañ koy dañ ko dul jàng rek waaye yàlla nga ko wax ci alquran ala tuhibbuna an yaghfira allahu lakum wallahu gafurun rahim alaa tuhibbuuna an yaxfira allahu lakum faafu moo ko jiitu faafu yàlla ne boo bëggee ma baal la faafu del jéggale wasfahu del jéllale alaa dama ne tuhibbuuna ndax bëggu leen an be yaxfira mu jéggal allahu buur yàlla lakum ñeel la ñu ne ko ankañ mu ne kon jël jéggale ma jéllal la del jéggale ma jéllal la ma jéggal la del jéllale ma jéllale say mbir faafu jéggaleel wasfax na ngeen jëllale alaa dama ne man yàlla man mi leen ko wax ndax bëggu leen an be yaxfira mu jéggal allahu buur yàlla lakum ñel nga ne ankañ mu ne kon def ko mu ne kon def ko beneen bi ci des nag salaatul faatihi dara yemul ni moom nañ ci yem rawati jamono bii mooy caabi passe partout salaatu ala nabi moom rek la nit di sikkar ñu yokk ajjana leneen lu mën a doon dañ lay dañ lay jëmbatal ca ajjana wala ñu tabaxal la fa château beneen jaamu yàlla ba mu mën a doon ba mu des salaatu ala nabi gis nga salaatu ala nabi moom rek moo ci am tey bu tukkulóor bi waxoon ni ñu koy waxee bu ma ko diggoon wax ko yal na yàlla julli ci yonent bi Yaxya Jóob waxal ma ko waaw kañ yow yaa ngi ko wax ci tukkulóor balaa ngaa daaneel yàlla ne malaaka yi bu mu échappé bind leen bu ko tubaab bi waxoon ci français yàlla ne bind ko bu ko waxoon ci anglais yàlla ne bind ko magasa wax ko ci bambara yàlla yal na yàlla julli ci yonent bi jeex na wax ko ci séeréer wax ko ci séeréer waaw waaw kay wax ko ci tukulóor moom ñett yëpp la dégg yàllaa ko dimbal magasa mi ndimbalal yàlla la de dégg na bambara dégg na tukulóor dégg na séeréer dégg na wolof xool ko mu ngi na la de yooyu yëpp dégg na ko ndooy ndimbalal yàlla la kon yàlla lim bëgg ci ñun gis nga turi yàlla yëpp mën nga ko def am shirk ndax toujours ñu wax ko bari na koy sikkar tur tur wi shirk la ci moom ndax am na lu mu ciy ut bu ko ci amul ba ko ku bàyyi tur wi koo ba yàlla ku bàyyi yàlla dem safara ah sëriñ bi daal tur wi ma joxoon gisuma ci tus ti tur yàlla la lay jox nga ba tur wi koo ba ku ba tur wi borom tur wi nga ba ku ba borom tur wi dem safara lii mooy musibay sikkar tur yàlla te bari na ci ñooñ jamono tey ku yor turu yàlla di ko yëngal am na loo ca dëxëñ dëxëñ ci biir maa la ko wax yaa nga dëxëñ ci biir loo xam ne nga dem ci sëriñ nag mu jox la ko imaam Yuusu Gay ñëw ci Chérif Ibrahima Chérif Ibrahima ne ko jàppal ci bii waat nag sëriñ si dañ mën a ñàngat <laughs> ñëw ci Chérif Ibrahima mu ñàngal xulli bët yi ne la imaam Yuusu yow laay wax gis nga bii boo koy laal malakut mooy yëngu naatalal la ko naatalal la ko ba nga yàkkamti waxuma ne amut de am na de waaye ko ko am du ko joxe noonu te ñaare ko koy wax boo ko seetee amul dépense su suba bëgg koo lijjanti ci yow moo ba ma joxee quatre cent mille ma jox la tur woo xam ne loo ciy laaj quatre cent mille mën na nekk sax waaye fekk yow mi koy joxe nañ la xool ba xam ndax sa comportement niroo na ak am nga 400000 sa compte ndax dara nga fa amoo njigu mburu naatalal la ko naatalal la ko jox la ko nga dem yëngal ñeent fukki fan la la waxoon 40 jours nga dóor di xaar 39e jour nga ne suba la 40 jours dara yënguwul 50 jours dara yënguwul soixante jours dara yënguwul cent jours nga ne kii moo mën a fenn tur wi de banaa ko ba nga waa ji ba nga tur wi ba nga yàlla ndax tur wi tur yàlla la mooy contraire u salaatu ala nabi amoo ci benn intérêt xam nga lu tax tur yàlla wi looy wax yaa xafaaru yaa sattaaru yaa sattaaru ngay si si kër pour yàlla suturaal la te yow daal suturaal kenn yaa xafaaru yaa sataaru yaa waaxidu yaa ahadu yaa fardu yaa samadu yaa barlu yaa xafuuru sikkaral bu la neex yaa dafa am koy woo ki ngay woo sa comportement lay xool est-ce que dëppoo nga ak li ngay wax ki ngay woo sa comportement lay xool li ma taquluuna maa la tafalun kabura maqtan indallaahi an taqulu maa la tafalun yàlla ne rëy na ci man ngeen di wax lu ngeen dul def yaa ngi naan yaa xafaaru est-ce que da ngay yàlla xool la xam ne déggal nekkul ci xol mu teggi la dafa am koy woo tur wu ne am na koy wo kam sax sa yëpp am na koy woo kay fa sa jama kii kam jësa fiikin ku ne am na koy woo kay fa sa jamakin kam jësa fiikin am na koy woo ahamun saqakun xalawan yasun am na koy woo am la xal la ma hudd am na koy woo amujil xab la xali mali hudurin am na koy woo amujil xab la mali hudurin am na koy woo du xam-xam bu ñuul talsam la te boo génnee woon ruuxaaniya bi léegi faj sa aajo mais compte booy débloqué la bu yàggee nga toog boo génnee woon roxaane bi léegi génnee xuddaam bi mën nga ko yónni mu defal la lu la neex kay fa sa jamakiin kay fa sa jamakiin kam jësa fiikin amujil xab la mali xudurin am la ma am la ma xal la ma xudd yooyu yépp am na roxaan am na am na xuddaam mais c'est pas intéressant mais waaw